yor wàllu accueil ñu xoolaat bu baax a baax ñu fàttali ne alquran dafay wax ne wa ida quri'a alquranu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun kàddu borom bi subhanahu wa taala buy jub dañuy sàkku wala suñ borom ñu digal ne nañu ko bàyyi xel bu baax a baax comme ni ko mbokk mi doon waxe sànq déglu ko waaye tamit ànd ak noppi xerawlu su ko defee ñu jox oustaz Omar Diop mu ci juróom-benn mi mu waxal ñu ci li nga xam ne mooy waqfu daaray kokki fàttaliwaat mbooloo mi lan mooy waqfu ak lu ko tax jóg waaye soññaat jullit ñi ñu gën a amaat taxawaay ci waqfu boobu ngir liggéey bi mu war a taxawee ci daara ji mën koo taxawee oustaz Omar tafaddal mashkuran ma'juran jazakumullah bi bëggaat ci teewaayu délégation Ahmed Ndoumbe Diop ànd ak seen numéro bu fa am solo solo bu fi andi may jëlaat moo moo ñu moo ñu jox moo ñu jox xabaar boobu yàlla yàlla fay leen yiw bismillah jël waaye sànq moo kon incha ci loolu lay wit dañ a présente wax ci mu gën a gàttee baat bi arab la suñ ko doon tënk dañuy wax ni mooy fond yoo xam ni li ko tax a mooy defar moo dafa jëm ci ñu ñàkk wala mu jëm ci miskin yi wala mu jëm ci doxandéem yi ak côté bu mu mën a jëmee moo xam dafa jëm ci tabaxaay jumaa ci jàkk wala tabaxaay hôpitaux wala defar ay yoon wala saytu ci ay jëriñ bañ mënal seen bopp ñu dem servir seen dëkk waqfu nag day alal joo xam ni l'islam moo ko moom c'est-à-dire l'islam moo rek lislaam lu mu wax lu ne day fekk am na tegtal ndax yàllaa ci joxe ndigal jaarale ko ci soppeem bi yonentam bi xaritam bi ambassadeur am diggante nit ñi ak jaam yeeg moom mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tegtal waqf lu bare la lool ci Qur'an waaye dana doy rek ñu jël ci laay bi yàlla day wax ne du ngeen am mukk ak mbaax bu ma sëkk lu dul da ngeen di dépenser ci yoonu yàlla ngeen di dépense ci yoonu yàlla waqf nag mooy alal joo xam ni dees ko doon na dees ko mayee dees ko jënd ak di jaay waaye mën nañ koo sakkanal la ciy génn muy financer projet yi l'islam yàlla di ñu wax ci laaye ci surat Al Imran lan joxe ibnu kasir bu muy firi aay bi rahimahullah dañu yàlla dañoo woo nañ ko gëm niñ ko war a gëmee gëm niñ ko war a gëmee topp ko ci li ñuy digal bàyyi li ñuy tere nam gën a matee ñu sax ci loolu mu ni loolu day wanee tam waqf lu ñu war a taxawal la ci société yi nga xam ne julli yi ña ngi fay dund réew yi ñuy dund communauté yi ñuy dund association yi dund ñu taxawal ko te ñu saxal ko ñu fi nekk di ko doxal bu ñu faatoo jógee fi ñeneen ñi tam di ko doxal moom la laay bi di wax ni laay bi la firi والذين إذا xanaa woon bu ñuy wootee ci joxe dañuy xalaat milliardaires yi di xalaat millionnaires yi mais ku nekk am na lu mu mën a def am na contribution bu mu mën a def na ko def moo xam ci alalam la moo xam ci xam-xamam la moo xam ci xalimaam la moo xam ci pouvoir yi ko yàlla jox na ci def lu mu mën moom la ñuy woo di ñu woo ñu def loolu yàlla di wax ni wa anfiqu mimma مستخلفين فيه kon tegtal waqfu ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xadis boo xam ne Amr ibnul Haaris moo ko nettali mu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi mu fiy jógee bàyyiwul dara bàyyiwul diinaar bàyyiwul dirham bàyyiwul jaam bu góor bàyyiwul jéebéer bàyyiwul dara lu dul baaxalaam bu weex boobu nga xam ni moom la yoroon moom la daan war ak ngannaayam ak suuf soo xam ne da ko yoroon bu def ko waqf ci ay doxandéem ak ñi nga xam ne dañ koy aajowoo moom lay wax ni ma taraka rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inda mawti dinaran wala dirhama wala abdan wala ama wala shay'an illa baghlatahu albayda allati kana yarkabuhu wa التي wa ardan jaalaha وأرضا جعلها للمستبيل أخرجه الشيخان وقفه من ليك دفن mooy loo xam ne duñ ko jënd duñ ko jaay duñ ko mayee duñ ko donn mais nag mën na fee nekk ñu koy sakkanal di ko yaxanal di fay ñi ci liggéeyee bañ mën koo saytu ak yuñ mën a yor moo xam ay boulangerie wala ay euh, frais de grande vitesse wala wàllu mbay moo xam lu mën a jëm moo xam ci wàllu éducation la ciy génn lool yi di financer projet l'islam kon loolu mooy définition waqf waqf lan mooy njariñam ndax am na importance waaw waaw am na importance bu rëy rëy rëy bokk na ci tuuti rek mooy day dëgëral relation diggante nit ñi diggante communauté yi diggante individu yi ak ñëpp ndax ndimbalante la te yàlla moo ñu wax nañ ndimbalante ci lu baax ak ragal yàlla subhanahu wa taala wa taawanu شديد العقاب وقف bokk na ci njëriñam mooy day tax communauté yi am jàmm nit ñi mën a jàppoo tampaloo doon benn xëy na xadiis yi ñëw ci waqf bare na lool ñoo ngi bëgg a jeexal mooy al imaamu Suyuti daf koo tënk xadiis yooyu boole ne leen muy fukki yëf mu nit ki su faatoo léppam day arrêté ba mu des fukki yëf tudd na la ci xam-xam boo xam ne nit ki daf koo jàngale woon nit ñi di ko jëfee comme lu mel ni lii cheikh na cheikh am saxloo rahmatullahi alayhi def lu mel ni doom joo fi bàyyi woon mu lay ñaanal dalay fekki lu mel ni loo jëmbatoon ay garab nit ñi di ko jariñoo ci ker gaar ci meññin ma dalay fekki mi ngi mel ni ay dex yoo xam ne dañ koo xëccoon nit ñi di ci jariñu mel ni tey kokk gi nit ñi mën

itam ba tey kër yoo tabaxoon ay doxandeem di ci jariñu bokk na ci jàkk ki jumaat yoo tabaxoon waaye bokk na ci jàngalee Qur'an lii la ni mën nga koo jël moom lay wax ni ida maata ibnu aadama laysa yajri alayhi min fiaalin gayri ashri ulumun bassaha wa duaau najlin wa garsu naxli wa sadaqaatu tajri ورباط صخر وحفر البئر أو إجراء نهر وبيت للغريب بناه يكوي إليه أو بناه محل ذكر وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصر كون ام لا اكزامبل اي ايميتي imiter مانا جوخي mën a joxe ci lu jëm ci wolof mooy daaray Koki am na lu bare loo xam ne état ko yor nit ñi ñoo ko mën a yoral seen bopp demal fële ci royaume d'Arabie saoudite al mamlakatul arabia saoudia am na fa boo jàkkaarloo xaramul makki yi da fa gis benn immeuble bu mag bu gudd lool dañ koo def ngir waqf man ngaa jàpp ne lu bare ci liy doxal entretien bi doxal màkk jumaay màkk bi lool yi moo koy doxal ak jumaay Madina ak yeneen yu ne ci dëkk bi soo demee Turquie da nga gis même ñu def lu ñu demee kon lool yi bu ñu war nañoo xam ni mën naa mën a am fii fu nag amoon na fii Sénégal bu yàgg mën nañoo jàpp docteur Wayal ñu ngi naan maa luy toll euh, boori 1906 ku ñu wax Alaaji a Diop taxawal na fi waqf muy dox baag et daara ji itam am na projet ci waqf fële ci liberté 6 gannaaw ba nga xamee ne waagu ñaay àgg na cheikh na cheikh ahmad muxtar alaj muxtar naarlo hafidullah wala dafa wax ne nañ jublu ci liberté 6 am nañ fa 1104 mètres maanaam carré yoo xam ni liñ ci bëgg mooy liggéey ba tàmbali na kon jullit ñëpp ñi ngi woo ci loolu waaw ñu tënk jeexal nañ xëy na waqfu bi tàmbale waaye am na beneen bu am doole boo xam ne tàmbale mooy wa jaahidu alhaji as ndaw hafidullah wa raahu taxawal ko kon loolu lépp dafa bokk ci ñi nga xam ne mën nañoo servir daara rek soo ma ko mayee Cheikhna Ahmed mooy mu tënk ñaari benn minute mooy euh, di ci kii euh, bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe on calminama on jarama on juurama min gonno yewtude ko faate waqf a waqfu l' islam waqfu noon e, e, e, raɓininde ko allah noddi allah wi ko ooy mon juulɓe sonno daamay ko wuurnata pittaali mon notoyɗe yeah. holletaaki yeeyataaki attack, kono noon ina waawi gollireede yipe ne jobe hen ko yaltata hen ko na feewndo projet di l'islam ko faate jamaaji ko way noon sen joginooma jama tottuma yeru tan taw jama ka yehi ha hiiɗi eɗen mbaawi ƴettude e jawdi ndii ɗoon fewnden ɗum ɗon nden on on mi on oɗon jarroo jaafo jino seede te ni na mbokk maa ngi jégalu bëggoon ñi nga xam ne xëy na pulaar lañ gën a jekku maa ngi dégg kii buñ présenté di présenté ñoo xam ne xëy na ñu dégg bu ñun ñëpp ñu sumb suñu loxo ak làkk booy mën a ak foo mën a dégg wa bihamdihi ashhadu an laa ilaaha illa anta eh, allah ci présentation bu am solo bi mu def ci waqfu ñu fàttaliwaat suñu mbokk yi yor wàllu accueil ak wàllu organisation biir base bi ñuy euh, xaw na jaxasoo tuuti nit ñi nañu dal nañu toog nañu dal allées yi nga xam ne dañ koo def pour nit ñi mën ci jaar li wër podium bi dafa war a am loolu ay yoon la nit ñi ñu yor wàllu accueil ak am na foo xam ne kenn boo fa toog euh, kon ñu bàyyi sa euh, ngi dalal délégation hayatul amal al xayriya association pour sauvegarder l'œuvre de Cheikh Makhtar Doumbé ci njiital Cheikh Mourtada Diop ñoo nañ fi ak délégation bu ama am solo ñoo ngi dalal monsieur le maire Serigne Djili di maire bu Ngidila ñoo na fi ànd ak délégation bu ama am solo bokk na ci Soxna Awa Ndiaye di deuxième adjoint ak troisième adjoint bi tamit ñoo nañ ñoo ngi dalal euh, jamaatu Ibadu Rahman ci njiital Serigne Mouhamadou Lo ñu jóge ba Thiès ñoo nañ fi délégation bu ama am solo ñoo ngi dalal délégation Babou Salam ci njiital professeur Serigne Mouhamadou Lamine Sarr ak Serigne Alaaji Mor Jaxate ak Serigne Jibril Gaye teew nañ fi ànd ak délégation bu ama am solo ak i ndimbal yu am solo kon ñu ñu ngi dalal majlisul ulama ahlul bayt jóge ba ndakaaru Serigne Mor Gueye jiite leen ñu ànd ak ay délégation délégation bu ama am solo ak seen indi indi ko ci daara seen sëñ bi mu ngi leen di sant di leen euh, ñu ngi dugg ci beneen tomb bu ama am solo bi nga xam ne mbokk yu bari am na ñoo xam ne ñu ngi koy liir ci euh, brochure yi ci daara kokki daara kokki démbam tayam fa mu jëm effectif bi fi nekk naka la ñuy dundee naka la ñuy toogee ah léegi nag ki nga xam ne moo yor lépp lu jëm ci wàllu njàngum alquran ci daara ji